victoire bi ñu koy dund ak mbégte parce ñu bëri favori tëngee lañ ko joxoon parce que moo ne si kaw buy ñëwee fii am victoire si kawam par 3 buts à 1 waaw loolu fierté la quoi ñu ngi kontaan trop boo dëggee si voté sa nga xam macha allah. waaw dëgg la kay parce que boo xoolee gars yi dafa doon am ay rumeurs yi daw ndiki mën nañu jouer commune wala moo tax buy ñëwee tee ñu gis ndiki joueurs yi pare nañu bëgg nañu gagné. dañuy gën a kontaan am fierté moo tax boo xoolee depuis match bi commencé ba léegi ñoo ngi doon yëngal si kaw. dëgg la titre bi rëcc na leen mais tey jii deuxième wala troisième lan ngeen a ah, nu ñu gën a jege podium bi rek moo ñuy gënal quoi. mais Sénégal euh, loolu la waaw ambition la parce que boo xoolee heure yi championnat bi rëcc nañu te Coupe du Sénégal moo ñu dese lépp lu si mën a joxe nañ si joxe ba fu ñu yem rek incha allah. d'accord nga nekk loolu damay delloo remercier coach bi rek parce que boo xoolee si junior yi laa jóge mu permettre ma ma ñëw si senior di ma dugal may titulaire yombul quoi kon maa ngi koy remercier bu baax a baax di ko sant bu baax. di santaal sama copain laa doon liggéeyandoo parce que tey bu bu ñu nee Goudiaby Goudiaby ngir ñoom la waaw. ok merci beaucoup.